réew mi du ñàkk ñu sotti fi loo xam ne yaa seen réew mi sotti nañ fi dara de léegi baat ak Sonko ah lii bëgg nga ñu waxtaan ci yow sa conseil rek laa ba nga ñu waxtaan ci baat génn def conférence ah <laughs> réew mi sotti nañ fi lu bon Waly Ameth Ameth Thiou grand frère Waly la Waly petit Ameth Thiou ak Waly séq nañu waxante yu baax ba tey ndeysaan te oh te amee ci barki dem ñëwoon na ne ko coono ma yónni. moo tax si réew mi am na lu ñu fi sotti. man moom kenn sotti wu ma fi moom xam naa itam ñu naan abaa réew mi yaay seetaan réew mi wallahi kenn sotti ma fi. yaa seen barki démb ca ngaaka ba leen axlu birik te ngaaka bi mu amee problème ak dib fekkoon na dib ak axlu birik ñoo nekkoon ay doomi ndey code yàlla yàllay dox àddunay dox seytaanay dox ba dib ak axlu birik dootuñu laale. yàlla yàllay dox ba ax lu birig farak ngaaka ñu ne ah te yaasin déglu ma man maa wax ak yow maay réew mi bi ñu àndee ax lu birig ngaaka di ànd di ànd ndeke di bàyyiwuleen di dugg na ci maamani dem na ci maamani tàqale leen maamani yi tàqale ax lu birig ak ngaaka mu nekk classe boo xam ne ginnaaw classe su dib ak omzo daala ak classe dib ak ngaaka bokk na ci classe yi gën a siiw ci réew mi te ñoom ñaar ay meilleurs amis lañu woon Pape Sarr ma ankay Pape Sarr du ma weddi ay ak lu mën a xew barte ko yaa may dégg yaa may dégg li lay ay wax yaa may dégg ah fan ma nekkati woon kii nekkaguma ci Bart ak Sonko kii envoyé na ma ci SMS naan ak lu mën a xew yaa may dégg nee leen ñii message nan calme rek <coughs> ku ci yor sa message rek bëgg ko jàllale

Waly ak Ameth Ameth Thiou moom kontaanul Waly tamit nee na moom kontaanul li <laughs> day naqare rek la ñoom ñaar kenn kontaanu ci ah. du doom respecté bàyyi. ah Waly moo war kon Waly moo war a woo Ameth dem baalu ji ko te gis nga Waly sax euh, moom la yet wi daal muy kilifa. moo war di baale moo war a tëdd tëddaay ñaaxaanaay ànd na ak yow ànd na kon Wally moo war a dem ci Ameth Thiou waxtaan ak moom ak yooyu loolu Wally la war ñu seeti dëgg la ànd na yow mais xalaatoo ni ëmmet euh, kii ëmmadi ak euh, Arma am na lu ñu ci def wala yow euh, loolu garaawul bu ñu bañ ci wax parce que ëmmadi ak Arma ñoom ay fecckat lañ ko Ameth Thiou donc Ameth bu génnee ñoom woowuñu Wally ne ko Ameth dafa war a duggaat xalaatoo ni bi dafa ñëw xalaat ne dafa xat ñu bëgg plus d'espace wala yooyu buñ ci wax ñu bañ ci. ku mujjee ñu Arma te Arma mooy seeg dabaay loolu tamit ok léegi nañ avancé nañ dem ci Sidi ak euh, ki nga xam ni mooy Omaro euh, Sidi <coughs> ak Omaro man dama yaakaar Baye moo nekk seen diggante Baye léegi mu ngi ci staff Wally Baye moo doon ménager Sidi Baye bi mu génnee Omar dafa positionné wu. waaw Omar position am dafa baax ni sama doom di barki sa waaw Omar sii di mii xam nga Omar position bobu la amee coow li bari euh, Omar joxe fa bakken léegi Omar bi fa joxe ay bakken Baye Sall bi mu génnee euh, euh, dafa dem mom tamit ci mamani dañu Omar joxe na fi ay bakkan bëgg na ñu récupérer ay bakkan Omar Omar récupérer ay bakkanam yobu xam nga tamit yoyu ba pare Omar génne waxon na seen wa kër waxon nañ ko ni Sidi dina xey suba wala xoma lan bu ñuul kuku ki ay ki bu ñuul kuku daal yaa ngi dégg ba pare si dégg Omar seen ki ay kii mooy dafa dem fii sama kër benn kii la dem toog fa euh, toogee ma fa te xam ni euh, ku ci ne ci ñun mës ngaa toog fenn toogee fa kenn yooyu taxul nit bàyyente xam naa li mu ko woon kii bu ñuul ko ko bi waxoon na seen waa kër wax kii euh, si dina ma woon yaa ngi xam naa lim ko woon kii bu ñuul ko ko bi loolu moo tax léegi loolu mooy problème mu Sidi ak kii Sidi famille Ndour ñoom muy baax famille Ndour ok wala dafa génnagul ci <laughs> parce que dama tamit damay bañ a nekk ci famille nit ñi nekk suñu famille tamit ñun suñu famille ok ñëpp a ngi ci yëpp a ngi dox mu ngi kii. acca kon nañu avancé ah fi ah fi ñu nekkoon mooy ci ah, Barth ak affaire bi nekkul woon Barth ak Sonko déedéet déedéet bi Sonko la woon. ak Macky avant Sonko Adji Sarr Sonko euh, Mame Mbaye Niang avant yooyu Sonko loon ak Macky concurrence bu mu metti seefu opposition bi ak seefu pouvoir bi maam kun am njaay joxal jóob kii boo ko laalee boo ko laalee coow li bari ci di ba fi ñu ni affaire yi ëlbatiku Macky dem ci maama